Hmm. assalamualaikum warahmatullahi rahmatulahi taala wa ci turu suñu fali fal jooju suñu Mbodj Binta ñoo ñu nuyu suñu Mbodj Binta Fall goor ñe ñee ñi mag ñi ndaw ñi di jël ci kaddu nak ñu na ko daan baaxoo déggee ci ñun rek moy ñi bokkul sëñ bi la rakami baax yi kàddu bi saa su jibee rek ñoy jëriñu kër gi ñoy jëriñu ci kaddu yi suñu maa ngi sant ñepp di gam ñepp di fàttali boppam te di fàttali di soññ boppam te di soññ li nga xamul moom muy ndigal yi bàyyi ko kër sëñ Tuubaa di tàbbi hmm, te ndigal moom lu mujj ñëw rek mu ëpp doole hmm, ndigal ndigal ñëwati na rek kon ne xam ne bis bi ci kanam di amal la yi di arab ji nga xam mooy lu fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru wolof yi di fukki ñaar fukki ñaar nag ci weeru tubaab sëñ Tuubaa Cheikh Salim Mbacké sëñ Tuubaa Cheikh Mouhamadou Mountakha jéem sa jéem sëñ Tuubaa ji ñu ñaan suñu borom yàggal na dund téeral nu ko hmm. àggale yee ñu baax ñëpp ci moom te àggale yee àggale yee ñu ci baax ñi daa daa waxoon daw la mu yónni nii da bëgg nu wut di sant suñu borom ci baax gi mu baax boole nu sëñ Tuubaa loolu laal ab jaam lottu na ci sant suñu borom waaw loolu lu ko sant doyul waaye cant ga nag ñu defee ko turu yàlla nag ndax ginnaaw moom mu gën màgg ci li sant li tudd lu nekk kon sukkur lay la waaye nag nu njukkale ko lox nag Serigne Fall loolu nag ku yaakaar seen tubaab lox rek waaye nu njukkale bis bi Serigne Fall nag loxo yi nu nekk jiw yi defee nañ ko ci ni daje daje nanu waxtaan nanu yëgoo nanu nu defee nañ ko rek. ndax bëgg boobee bis boobee mel na ko suñu bëggee mu ñaan àgg ca jàmm te laq ci ngërëmul ko tax koy digal rek ndax mooy fi sëñ Tuubaa hmm. ki fi nekkal Sëriñ Faal di seen Mourou Moussa suñu émission moom suñu mbiru mel na mu ñaan suñu boobu yàggal dundum gi te wéral ko àggale yéen ñu baax ñëpp ci moom àggale yéen àggale yéen ci baax ñi jotal leen jotal leen ko nu nekk rek. ba ñëpp jot yi waaye dolliwaat yi nag ndigal li nga xam ni mooy liggéey bi ñu liggéey ñu waa Kër Serigne Fall gépp nag ci Mbàkke ci stade boobu ñu bi addiya ju sëñ mu tuddee ko daara yi sëñ Tuubaa joxe ne Serigne rek la bëgg mu taxawal ko daara sëñ Tuubaa boo ko seetal rek eh, lu ñu bëgg ci daara dafa am dana te te ñu wéeroon ko nag sëñ bëggaat bis bi nga jéem a larba ji muy di àllarba ji mooy itam ñu tàmbali ci liggéey bi nag ku ñaari ndigal lay bokk te tey leen nag loolu nag kër gu ne nag doon jëriñ ma ngay soñu waa kër gi te jiital ci soñe ba boppam nag moo tax suñ fëlil faal jooy si mu taal jine noo ñaan suñu week la dundam te leeral koo njabootam gépp jiital ci rakk bi baax yi moo tax muy soññee nag moom itam baatu ndigal boobu bii bëgg ñëpp jàppe ko raw sax nan ko jàppe woon ci ñu eh, tàmbale ko àllarba ji yéen seen moom itam tey jii la talaata àllarba ji suba ji bu déllusee la bi joxe ndigal ci loolu yi ndax jëriñu Cheikh Alpha ji fi nekk seen seen mu Moussa seen mu na ca liggéey ba seeti ko tey jii ci bisu talaata ji ngoon ànd na fa ak rakam yu baax yi nga xam gi wax fa ñoom kàddu yu te te wér ci moom lool defewaat liggéey bi na na ki fi nekkoon na ki fi nekkoon defewoon defewoon rek di sëñ Cheikh ñaan suñu boom dolli ngërëm ya taxawaay mat baag rafetaay ak lépp jaar na ca bëgg na kon nag sëñ Fall yi mooy itam ñi mu jëwar suñu boom Fall gi ne mu di leen soññ nag baax a baax mu jàpp ko jàpp yoon raw te liggéey bi xet yi cim mooy mooy liggéey bii liggéey liggéey bi liggéey liggéey Sëñ Tuubaa bi li koy liggéey mooy hadiya yi ñu fab di jox sëñ bi kon nag liggéey bi hadiya itam nag ñëpp bàyyi xel ñi nga xam ne ñoo jotoon seen leer ci hadiya yi ko woon nan ko andi a gaawee rek ñi nga xam ñi fi ñi fi jëkkoon hadiya yi lii dafa jàppandi muy kenn ku ne nu bind aw sa tur def ci ngërëm seen bëgg cant yi loolu bànneex la boo xam ne ñi fi njëkkoon joxe leen addiya joxe ko nekk ba xam lu ne ci addiya te bindul leen ab lettre kon nag koo xam ne am nga lettre xaas la na nga ko indi koo xam ne amagoo lettre fab sa addiya indi fi bi soo ñëwee la nga joxe des na ko defal mandarga moom maa delloo ba xam ne amagoo lettre lettre bi yàggu fi am te addiya di mel na war a mel kon siñ baa ngi soñ ñëpp ñëpp ci liggéey bi addiya yi ay seen yaakaar si seen bunt si kër Sëriñ Fall mooy si mbirum de ma ngi ma ngi soññee ñëpp góor ñi jigéen ñi mag ñi ndaw ñi di baaxee nag ak cant ak ngërëm tàmbalee ci dëkku Tuubaa bi ak Mbàkke gi ñu koy liggéey ñi fi newoon te te te mu ni seen kanam di jëriñu soppe yeeg xarit yeeg noonu mu ci biir nan ko daan defee rek kon ne xam ne liggéey bi liggéey nañ liggéey bu nekk waaye bii moom mos fi am mukk xeelu gu ne di di di di di kenn nanu di kenn nanu ko sëñ bi ñi taal ka fee joxe ñi togg ñam ya ñëpp ci diggante bàkki Tuubaa rek lu fi aju rek ku ne ku ne defee nga noon nii loolu suñ baa ngi ko yeesalaat noo no noo ko war a njëkk yeesal suñu bopp waaye ma ngi bàyyi ko ci làmmiñ sëñ bi rek jabaram yi xëy mooy mooy seen jëriñ ñaan ci bitim réew yi bàyyiwuñ kenn ndax bari na ñoo xam ne leen taxaan génn réew mi kat Ah, weesuwul xaddi jun jos seen jëriñ ji mu teg loxo jëriñ seen faal mu tuwaaj yi ñu bare loolu leen tax génn réew mi waaye dooy tax du am du am jong mi tak woote yi loolu taxul leen mi leen tax génn réew mi du seen jëlul kër ga ndax am na ñoo xam ne agré dene ñoom bu la ñàkk njële képp bañ nu waxee jaba laxasaay ba dër këng yaraan lu ñu yaraan seen lu ñu yaraan na ñoo xam ne seen bàyyi nañ seen borom cëram gi muy rëy ñoom réyatun mën na génn ci mbedd yeeg jabaa kër yi di màjjal lu dundee waaye bëgg nag lu ñu jëfale sëñ Tuubaa seen rek mooy tax a génn mi ñooñu nag am na ñoo xam ne seen jom dara dara desu ñoom mat na sëkk ñoo ñoo la la la nekk foofee lay sori sori sori yu jege lan kenn ku ne na ngay joxe njël si biir kër nu ko raw ngay defee liggéey bi am na ñoo xam ne bis a ma ci àdduna soxna yéen bàyyi gànnaar dana leen tàngaloo ko fa indi liggéey bi bis dana leen toggalu añ ñeneen des bis bu xëyee dana dugal nag ci dara lu jëm ci sëñ bi te non ci réew yu sori loolu kat jaaykat yi ci biir mi sax day ko bu ñi cëpp bu juróomi waxtu jotee wala lu ko di fab lañ yor lan ngoor ci bis baa ko ñu yóbbu ko banque ko fa te ñun nag nag mooy sëriñ bi te ña fab lan xam yóbbu ko ci banque ba xamul fu ñu mujjee waa banque ba xamul fu ñu mujjee ñaan koy dencal ndax ñaan koy dencal lu ñoom ñoom ñu da ngay génn àdduna bàyyi ci àdduna loxo xam jal la bu kenn xamul boo xam ne na koy fekk ci barsax bis bu ne di ko di ko jóoral ab jóor di ko ne ko la nga bàyyi woon ci àdduna nu cee def lu lii moo ci amee tey ko jàll rek bis bu ne nag la la lay jàll nag moom mu ngi gën a bañ ci ñam ma nga lekkoon dim ba mu rees ba génn ci na ngay bañ dara dara taxala ci nu ko raw ngay bañ a gise loolee te bis bi indi ko ndax yaa ko fi bàyyi woon kon nag ñun suñu banque mooy sëriñ bi rek waaw ku ne sa de ñi ñi sori te melu nu yéen am na ñooñ seen dépasse kër dara da ci manqué bu ceeb manqué ñu leen manqué bu ñu manqué bu dee këyit ndox wa ba sax nu leen ko nu fab di joxe te ci réew ma la nekk kon nag banque bi nga xam moom dara du ci xëyib tey jii du ci xëyib ba léegi laa ca def dara jëriñ tey jëriñ la jëriñ say bokk jëriñ sa bopp yow di sëriñ bi bu ñu koy fàtte mukk suñu baan soñu bopp di soñu waaw loolu yëpp bëgg mu raw rek na fa loolu la jox sëñ bi mooy tax ko ci loxo suñu borom bu wér a wér wér kon ñi ci bitim réew taxawaay yu rafet yi daan def nga xam ne lu ci ne ak ak lu lu gën la rek fam na ko jox sëñ bi ndax bëgg gaal gi teew yu bàyyi leen ko muy liggéey bi sëñ baa ngi soñ ñëpp nag góor ñaa jigéen ma ngaa ndaw waaye jàppe rek noonu ngay mel hmm. kon liggéey bi bu kenn kenn jaay ne noo jiyee ñi ñi sori daan raw. njëge lool ndax am na njëge te sori am na njëge ñoo seen dara demul ci liggéey bi te noo ngi bi loolu mooy jege ba ne sori ñi sori nag bis bu ne ci àdduna seen wërsëg ba ah, seen jëf ji bàyyi ko fa tabbi ci sëñ bi ñooñee mooy gaañu sori te jege kon nag ñi sori ñoo ñaan suñu boom boole ci ñooñee nga ñu sori jege suñu baa ngi soog ñëpp ci liggéey bi góor ñi jigéen mag ñi ndaw daal liggéey baa ngoo ci suñu loxo noonu mur yi kon nag xam ne wet gi ci féeti woon su dee benn nga jàppoon jàppal téeméer yoon rek cëru kenn rek la te mbooloo mépp ko jàpp suñ baa ñaan sama defal ak wér ak jàmm nag la na ko suñ bëgg rek ak lam ci bëgg lépp suñ boobu ban defee ko na ko waaye njotam wasalaamaaleykum ba tey lii kat luy juut rek waaye mën naa am yéen toppaat waaye li moom suñ bee ko waxoon kon noo ñaan sama borom kaddu yi ku mu ku nek nga fexe ba sa morom mu jote njaboot suñu mbëndum daal gépp ko bokk kër mu ne amna jëw jëw ñi dana ji wa salaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh la ilaha illallah ngir ngeen di jot vidéo yi am solo yi bayiko fi ci sen sen daru berefal TV da ngay beus fi ñu bind s'abonner ba noppee nga tek ci kolos bi. aha la ilaha daaru Darou Bayré Fall TV, la première chaîne qui valorise la vie et l'œuvre de Mame Cheikh Ibrahima Fall.